lay junj au-delà de pàcc bi mu jagleel euh, ñëw ci bu baax ci li muy kenn suñu naataangoo yi euh, ci wone facette yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ñëw na ci lenn également ci actualité ci en tout cas la mu jot tontu. oui am na ñu comprendrewul ñu jàpp ni oui beneen mm-hmm. xeetu Cheikh Yérim la mm-hmm. gis bu uteeg ba ñu daan gis ñu jàpp ni stratégie la xëy na dafa am yeneen yu mu jullu parce que même ci biir speech am da dégg tout le temps buy référé wu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam automatiquement dafay citer Ousmane Sonko ci bëgg bëggee contextualiser mm. Mm. Euh, ci fii euh, politique tollu ci réew meek li jot a am ak fiñ ci toll est-ce que bi nga koy toll di ko di ko déglu ak li mu indi gis nga ci leneen lu uuteeg perception bi ci ñenn ñi gis mm-hmm. après sortem boobu <laughs> waaw nga <laughs> Euh, loo tax ma lay def rek waaw dama xam ne xam ko bu njëkk ba on parlait de Cheikh Yérim Seck mais peut-être que désormais il faut parler de Oustaz Cheikh Yérim Seck ou Serigne Cheikh Yérim Seck en fait il a fait un exercice d'intellectuel en fait li mu def ne hmm. yi fi intellectuel la def xam nga la mooy intellectuel celui qui qui euh, qui se mêle de tout même euh, dans des domaines qui ne sont pas ses euh, domaines de prédilection xam nga Cheikh Yérim hmm. ñu ngi ko xamee ci analyse politique disons-le comme ça mais tey mu dugg ci yonent bi ah. euh, mais articuler ko euh, dans sa dimension politique quoi hmm. wax na sax ci affaire de diine waaw donc xamee wuñ ko woon ci affaire de diine comprendre nga hmm. donc de ce point de vue de ce postulat il a fait preuve hmm. euh, d'un intellectuel c'est-à-dire que intellectuel mënul am barrière mënul am frontière ci science ak connaissance comprendre nga lu ko xelam jox rek mën naa dem gëstu ji ko te apparemment gëstu na ko euh, euh, ñëw wax ci quoi peut-être que man sax seetaan ma ko démb laa tey laa déglu ci revue bi presque bon j'en ai suivre naa ko hmm. Euh, bon, en fait, j'ai trois observations, hein, comme wow. on trois Bien. observations, oui, trois observations. Euh, xam nga man communiste la man je suis pas très fort ci affaire <laughs> diine yooyu quoi ah <laughs> Sénégal nag moom boo ne communiste rek ñu yaakaar ne doo julli doo woor quoi fekk euh, on communiste. parce qu'on est très sensible à la fraction à la fracture sociale hein. c'est donc c'est des questions de fracture sociale c'est de questions de redistribution de richesses etc mm. davantage que des aspects de religion mais bon bref xam nga li Cheikh mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même foofu sax ah bu ñu nee yonent bi dañuy wax sallallahu alayhi wa en fait euh, il y a deux damay dugg rek génnaat ah ci domaine boobu euh, dafa am euh, Mohamed Ibn Abdallah kooku mooy Mohamed doomu Abdallah euh, kooku nit la comme man ak yow mais mu am Muhammad Rasulullah envoyé de Dieu est en général les puristes et les exégèses dañu lay wax yaa ngi wax Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand on parlera de Mohammed envoyé de Dieu loolu lenn nañ ciy teg sallallahu alayhi wa sallam mais su ñu nee Mohammed le fils de Abdallah boobu ce n'est pas l'envoyé de Dieu mais ñaari affaires yi dañu bokk bokk ba nga xam ni. doo leen mën a boole mën a boole. comprendre waaw pour wane ni en fait dama tooñ ni euh, li may nekk communiste yëpp aussi damay gëstu Ousmane quoi <laughs> kon donc communisme n'a rien à voir affaire yu jullee ko wóor ak yooyu ah. sénégalais yi malgré bu fekkee eh, eh, noonu lañ ko jaayee quoi eh. mais c'est que li ma bëggoon wax première remarque mm. mooy euh, j'ai bien écouté Cheikh Yérim c'était très intéressant mm. mais pour man li mu wax lépp ça relève de l'histoire j'attendais que euh, de l'histoire mu def ci une mise en perspective mais li ñuy wax yëpp euh, euh, mi ngi ci téere yi daal est-ce que nga. maanaam effort bu ndaw ci kuñ ne mën nga koo xam. voilà très bien non yooyu sax boo demee xam ko sax man maa ngi kër ga ay livres ah. sur la vie des prophètes. moi j'ai un livre sur la vie des prophètes yooyu muy wax yëpp mi ngi ci livre bi prophète bu nekk fa mu jaar ah ses hauts faits d'armes Euh, arbre général généalogique ah cetera et cetera donc li mu wax ni yëpp mi ngi ci téere yi bind et pour ça peut-être il a dit que il a fait donc loolu c'est du factuel comprendre sunu ustaas moom la ñuy wax sunu waykat yi sax moom la ñuy wax ndax ndongo loo nee na ca woy ba loo mën a woy woy woy te woyoo yonent bi euh, sa woy nul na loo mën a mën a bind bind te bindoo ci yonent bi tamit sa bind nul na et donc euh, sunu islamologue yi fii. Hmm. Euh, li Cheikh Yérim wax man boog yàgg naa koy di dégg comprendre nga y' a pas un élément nouveau. j'attendais à ce que très bien j'attendais en tant que mm. ça c'était le fait historique ou l'historicité ou l'histographie su defee historien def ko la mise en perspective comprendre par rapport à la politique nationale def na ci ay Ousmane Sonko et cetera ouais. mais tu sens que euh, le message de de de du prophète sallallahu alayhi wa sallam jàngaleem destination mënul doon benn nit rek comprendre nga c'est vraiment amee limite parce que moom day jàngal humanité donc leçon yi muy jox c'est pour l'humanité mais pas benn nit mais soo ko bëggee tënk ci benn nit euh, la mise en perspective ce qu'on appelle la mise en perspective te amul benn leçon pour l'humanité mu mu jëm ci benn nit dafay des. dafay des est-ce comprendre donc hmm. moi je m'attendais à ce que effectivement yonent bi lii la wax yonent bi lii la maintenant suñ ko doon def la mise en perspective par rapport au monde actuel par rapport à la géopolitique par rapport à la mondialisation par rapport aux nouvelles dynamiques sociétales yi Sénégal yi di dund yan perspective nañ ci mën a génne est-ce hmm. est-ce que yan yan euh, ba ci ay revirement dogmatique ba ci ay revirement jurisprudentiel nees nañu mën a defee relecture exceptionnellement par rapport ak fait yoo xam ne amoon na depuis euh, presque ah diggante bi presque yaa yaa yaa yaa yu presque plus de mille ans nan nañ koy mën a contextualiser nga joxe ko tout son sens parce que le discours alxuraan jamono ju ñëw mu ànd ak moom ndax moom mooy jamono ah. est-ce que vous comprenez donc je m'attendais à ça par exemple je donne un exemple moi quand je euh, lis Freud euh, non non Freud nit Nietzsche. Euh, quand je lis Nietzsche et que je veux mettre en perspective damay wax ni la crise des valeurs ci monde bi ñu toll nii. Hmm. même la volonté de puissance de ce qu'on appelle les mouvements d'extrême droite. euh, même la montée en puissance de ce qu'on appelle les nouveaux droits, la promotion des nouveaux droits, ouais. où euh, il y a une forme de critique sévère de la morale chrétienne et de la morale, dison religieuse tout court. Euh, seen racine mi ngi jógee ci les travaux de nit c'est-à-dire que société bi ñu jógee Nietzsche la société occidentale est une société dafa mel ni ñu ngi doog a lire Nietzsche ñu ngi doog ko comprendre Nietzsche ce que ci disait par la volonté de puissance même si des fois ils l'ont mal compris d'ailleurs sax beaucoup disent que Hitler avait lu Nietzsche mais il l'a lu à travers c'est pourquoi il a incarné la volonté de puissance hmm. jumale ko ci la communauté juive mais tey jii soo gisee l'Occident mu mu bañ bépp valeur disons religieuse que ce soit l'islam christianisme ou judaïsme di prôner les contre-valeurs donc koy mën a def benn connexion avec les écrits de Nietzsche par rapport à la morale hmm? par-delà le bien le mal par les Zarathustra esse homos et donc j'attendais foofu cest à boo liiree nit Nietzsche nan nga koy mën a kiyee et tey tey jii euh, la philosophie nietzschienne c'est une philosophie ki commence à avoir un certain intérêt par rapport aux occidentaux maanaam du ñu gëm dara. Hmm. Ah, euh, parce que Dilshah euh, il ira jusqu'à dire que Dieu est mort il a euh, mais ça c'était il parlait pas de de ce Dieu omniscient omnipotent il parlait du Dieu des philosophes cest dire que la raison la rationalité et cetera mais bon. foofu nga ko doon xaar très bien ça c'est un débat quoi très par exemple tey jii Nietzsche dans ses écrits il dit non à la morale chrétienne. Hmm. est-ce que vous comprenez. surtout par rapport au corps parce que dans nos religions le corps est sacré mais dans les écrits de Nietzsche la, le corps ne saurait sacré est-ce que ah, comprendre voilà donc c'est et donc même les occidentaux la liberté qu'ils ont par rapport au corps la désacralisation qu'ils ont au, au corps euh, Oh, Platon ou Socrate, euh, Platon, je pense, disait que soma sema, le corps est un tombeau. Il faut mourir dans le corps pour renaître dans l'esprit, etc. Oui. Euh, euh, D'ailleurs, petit déguisement, il solo, hein, etc., etc. À toute la symbolique. Oui. Voilà, j'attendais un peu oui. une forme de mise en perspective. de yonent bi lu mu wax noonu yooyu mais bon nu raconter fu mu dem fu mu lu mu jublu bon je n'en sais pas rien ah ma ma ma ma je du point de vue intellectuel <laughs> parce que Yérim c'est un puissant intellectuel aussi mooy observation yi ci def euh, waaw boobu mooy première bi euh, jox ma waaw mu des daal xam nga c'est parce que Yérim est un puissant intellectuel que je l'analyse du point de vue aussi intellectuel universitaire et cetera hmm. c'est-à-dire que euh, moom de par sa sa qualité euh, il aurait pu faire mieux et plus comprendre hmm. mais de ce qu'il a rapporté euh, c'est euh, ce qu'on sait tous maanaam tout a été dit encore que faudrait-il que tout ce qui a été dit ait été compris par tout le monde donc et cetera oui. donc il a manqué plus ou moins à avis forme de valeur ajoutée de plus ci mën a tutuer suñuy sens ñu defaat benn relecture et cetera et cetera et cetera boobu benn euh, la deuxièmement euh, te man sax yooyu moom may gën a intéressé parce que man loolu suma domaine xam nga dama ko dégg mu joxe benn proposition hmm. mu ni euh, président Diomaye moom il aurait suggéré hmm. bi président jëlee pouvoir mu jubali directement bu defee passation de service jubali directement ci Joe Biden États-Unis maanaam daal làqatu ci moom euh, foofu laa ko bëgg apporter benn euh, benn remarque hmm. mais sur deux aspects d'abord euh, cela montre euh, aisément et pertinemment que Cheikh Yérim ne ne comprend pas la trame euh, de ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire que noonu mu waxee noonu hmm. c'est parce que dafa réere ni la woon na waay te li fi nekk nii c'est le mouvement révolutionnaire est-ce que comprendre nga te le mouvement révolutionnaire soxlawul di bàyyi bàyyi di wutiwaat beneen bàyyi moom ci ni mu ko analyser hmm. dafa mel ni euh, il est dans les schémas classiques antérieurs mooy la fi daan am. Hmm. maanaam am baay bàyyi bàyyi dem wuti baay or ce qui se joue au Sénégal du sax perspective boobu du nekkul bàyyi bàyyi nekkul wuti bàyyi bu bees mais dox sa dox la est-ce comprendre ah, ça veut dire très bien très bien parce que moom ni mu ko waxee nii c'est comme euh, déshabiller Paul pour aller habiller Pierre ça veut dire que li ñuy dund ñun Sénégal hmm. avec l'arrivée de jomaay et Ousmane Sonko. Mm. nous ne sommes plus dans des logiques de paternalisme. si vous êtes dans des logiques de paternalisme ñun ci logique bi ñu nekk mooy àndum nawle. ah est-ce que comprendre nga. waay euh, wutuñu bàyyi wutuñu euh, ku ñuy yiir mais ñi ñu mën a àndal nawloodu ñoo la ñu wut. moo tax bu mu defee prisme boobu rek. Mm. j'ai tiqué d'autant plus que. dans la matérialité des faits mm-hmm. ça ne se passe pas comme xam nga lu tax parce que il faut euh, comme il avait dit il enseigne les, les géopolitiques oui. c'est intéressant et euh, euh, j'échange avec lui sur le plan des sciences politiques oui. et d'ailleurs et d'ailleurs c'est ne pas intégrer dans son analyse c'est quoi le consensus de Bretton Woods le consensus de Bretton Woods ce n'est pas seulement une affaire économique financière autour du dollar mais c'était aussi une question de géopolitique à amérique comme zone d'influence le Proche et le Moyen-Orient aux pays yi doon def colonisation Angleterre France les grands vainqueurs de la guerre ñu bàyyi leen nag seen précaré ce qu'on appelle la logique des précarés kon tey jii moom loolu mu wax noonu même bu ko Sénégal demoon ba koy defit Joe doon du ko nangu. lu parce que dafa am benn affaire gentleman agreement boo xam ne moo lal. ce qu'on appelle le camp occidental